asalaamaaleykum mbokk yi ñëw ak yéen ci naafila bis bi tey jii di samedi fukki fan ci weeru koor di guddi fukkeel ga ak benn sëriñ son bi wax na ci xoratul xay ni guddi fukkeel ga ak benn ku ci julli ñeenti raaka raaka bu ci nekk gannaaw faatiha nga jàng inna anzalnaahu juróom-ñaari yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna juróom-ñaari yoon xul huwallaahu juróom-ñaari yoon bu sëlmalee mu wax laa xaw la quwwata illa billah aliyul azim juróom-ñaar fukki yoon julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaar fukki yoon bokk na ci ngëneel naafile googu des na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj te des na ko bindal tuyaabay jaamug yàlla am at te dana mel ni itam ku goreel junniy jaam saraxe junniy deenaar reggal junniy ñu xiif wodd junniy ñu rafle te lépp lu nekk ci kaw suuf dana ko jégalul yàlla moo xam lu wow la wala du tooy te des na ko musal ci balaa yi ak fitna akub xiif akub ràgg ak sàddum jinne te des na ko musal ci mettitu dee te dana tàbbi àjjana te dees